Mohamed Boun Abdallah Dionne gane àdduna ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weerum septembre atum 1959 ca gosaas bokk ca région bu nekk ca Fatick nekkoon ab politicien bokkoon ca parti bii di APR bu Macky Sall bokkoon tamit ca jëwriñ yi njëkk yi nga xamante ne Macky Sall tànnoon na leen ba muy jiite lii di réew mi ca atum 2014 ba ca atum ca atum ñu gis ne kii di Mohamed Boun woon Abdallah Dionne dañ ko éliroon lii di président du conseil d'administration de la banque internationale pour l'industrialisation et le commerce du Sénégal waaye ca même at moomu dafa démissionné ca weerum septembre ba ñu gis ne Mohamed Boun Abdallah Dionne dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ doon waaja lii di élection présidentielle yu 2024 ci campagne électorale bi ñu nemmeeku ab absence am maanaam gisuñu ko ci campagne électorale ñu dégg ne dafa feebaroon feebar bu métti 24 mars 2024 ca bésub élection ya ñu dégg ne dañ koo évacuer yóbbu ko ca France ca Paris pour lii nga xamante ne moom mooy wérgu yaramam mu mën koo faj ñu am ak tiis ak njàqare boo xamante ne moom la ñu dégg muy le 5 avril 2024 ñu xamal ñu ne kii di Mouhamed Boun Abdallah jonn yàlla dogal na ne feebar ba ko tëddaloon muy insuffisance rénale mujj na ko yóbbu génn na àdduna ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ko ñaanal ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fii mu jóge te di ko ñaanam yàlla teeru ko ci aljana yu gën a kawe